وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ci kilifteefal mbooleem xalif général yu Sénégal ci haut patronage bu son excellence monsieur Macky Sall président de la république ak mbooleem membre yu gouvernement bi ci ndigalal Serigne Mokhtar Narlo directeur institut islamique Cheikh Ahmadou Sahir Lo bu Koki ak mbooloom ay collaborateur am Serigne Sayer Mbaye xalifa kër Maam Cheikh mbay ci diwaanu Louga Serigne Koki El Hadji Mouhamadou Xaban Diop monsieur El Hadji As Ndaw Ndukuman ak mbooleem ñi génnee daaray kokk ñooy am mbégte di leen yëgal ak di sàkku seen teewaay ci xew wi jëm ci lancement officiel projet bi ñu duppee jaahidu as xolam bëgg-bëggam yéeneem yal na ko ko yàlla defal te it ko amoon li mu bëgg ak yéene ko su ko amoon moom ak ñu mel na ñoom ak ñu mel na moom wallahi dama ne waxuma la rangoo ñu daara ji dana far waaye rangoo ñu daara fa mu mënti nekk ci réew mi dana far ma mën a waat ci yàlla ne yoon la waxee ne yoonu àjjana la alhamdulilah ndax yoon yoonu àjjana la ndax joxe sa alal ci yoonu yàlla loolu moom kenn ku nekk xam ne loolu ku bëgg na loolu moom dara jiitu ko ci. loo xam da koo mas a yitteel. ñu ciy wax daan ni ñun nañ fas yéene yor daara ji ñun ñu jógee ci daara buñ ko deful suñu borom dana tàggat ñeneen ñu jógee feneen ci àll ba ñëw ñëw yor daara ji kon nag nañ jël suñuy responsabilité. dañoo am benn sas junniy million la daara Koki soxla ci bis boobu lañ koy lancé. di ci amal ndajaleem koppar ngir daara ji di ko liggéeyee bàyyi yalwaan gi benn fan ci weeru avril 2023 lay doon ca Grand Théâtre National bu Ndakaaru li ko tàmbalee 9h ci suba gi programme bi dinañ ko tàmbali ak njàngum alxuraanul karim teg ca bu waxtaan ci dund ak jaar-jaari Cheikh Ahmadou Sahir Lo di ki sanc daaray Kokki atum 1939 ñu ngi sàkku teewaay ak barkeelu ñëpp ngir bépp leeral woote leen ci 77 644 19 25 wala 77 422 53 57 ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون